dama ne nañ waxante dëgg ci réew mi kilifa diine yépp a ngi ne tekk noppi teguñu ko fenn xam nañ na li jaar li am ci réew mi jaaduwul xam nañ ko ñoo la ko gën a xamaatoo ñoo la gën a xam na li xew ci réew mi jaaduwul jël Mais non, non, mais attends. Nous sommes dans quel pays ko teg fan lañu teg li ñuy def réew mi tey jii romb wu takk der la foo romb grenade lacrymogène la ca booba ni ñaa ngi dee ca booba nit ñaa ngi dee ci clinique ca booba état baa ngi ne pataaral amul benn solution ci covid bi ñu ne lan mbiru Ousmane Sonko waaye nañoo xam te dëgg ana suñ kilifa diine yi lu tax ñun bu ñu jaaxlee rek fi mu nekk nii seeti kaddu maam Abdou Aziz Dabakh wala kaddu suñu Abdou Lahad suñu maam ju baax jooju wala seeti kàddu keneen dañoo ragal Macky Sall wala la duñ ko wax na ko réew mi tolluñu ci lii fii yëpp suñu bureau yi lan grenade lacrymogène ata yuñ taal kër yuñ tàkk pour lan ci réew mi yoon lañ nekk xanaa tey war nañoo am gàcce tubaab yi laaj ñu sax nañu waa yéen lan moo xew buntu consulat France ba ngeen di manifester ñu ne waaw affaire euh, euh, góor bu ndan massage la woon affaire viol la affaire coow la loolu yëpp dama ne duma ci sori parce que xam ngeen man la ma ca waroon def en tant que journaliste def naa ko ña ma ca waroon jox kàddu en tant que journaliste jox naa leen kàddu ñu wax mais du gàcce mais ñi xanaa amuñu rusukaay mais nekk des larbin yoo xam ne nekkoo woo lu dul dañuy comploter dañu xool way Ousmane Sonko oui Ousmane Sonko mbaa di ngeen ko fekkee Covid bi ñaata nit la rey mbaa yéen ngeen fekkee deux mille vingt quatre kan moo mën a waat fi mu nekk nii da yow di nga fekkee sax suba ñaata kilifa diine ñoo dee ci Covid bi ñaata damay laaj rek. ñaata ñoo ci dee ñoo ñàkk seen bakkan est que yow di nga fekkee la ngay calculer di wax ne naa éliminer bii adversaire wala naa éliminer bii adversaire parce que yow wóor na la di nga fekkee deux mille vingt quatre sa bakkan na ko yor sa bakkan na ko yor non nëbbuma dama mer parce que tey jii réewum Sénégal waroon nañ tal leneen première vague bi ba mu amee Macky Sall lu mat quatre wala cinq discours def na ko di wax ratatatatatat il faut vivre avec le virus tey jii deuxième vague bi li muy rey première vague bi reyu ko hôpitaux yëpp fees oxygène amuñu ko dama ne oxygène bi nga xam ne boo ñëwee ñu war la ko sampal boo nekkee ci amuñu ko amuñu ko laa wax ñu tal mobiliser ay gendarme ay xeex ay wax yoo xam ne wax bay la puude la waay waay dëgg ba nekk dëgg moo di ñu ne Ousmane Sonko dafa def lim def man nee naa la du ma defaan Ousmane Sonko de moom mën na defaan boppam ndax wax na li muy wax nee na respecté leen loi bi parce que je suis député yéen a ëpp majorité assemblée nationale gàcce la sax guddi gu ñu toll assemblée nationale amuñu dara lu ñu tal lu du lever immunité parlementaire un adversaire politique te war a tal leneen. lu tax assemblée woowuñu Abdoulaye Diouf Sarr lu tax assemblée woowuñu Mansour Faye damay laajte ñu toll ci loolu cooli bari lool taluñu leneen loolu ay salon de massage jël ku jigéen dama dégg interview Marème Faye Sall mu ne moom wàllu santé la priorité ma xam ko ci te tamit dëggal loolu lu baree bare ba xam naa am na lu ma ci xam madame Faye Sall ki ñuy toroxal jamono yii ndax salon de beauté te état bu Sénégal moo ko jox autorisation parce que boo fa demee dinga nga gis ñu bind fa ñu bind fa affiche am mu leer du lu mu def accouchement par césarienne doomu huit cent grammes ñu topp ko antenne yërmande ña yor section de recherche ku sa jabar wasi ci condition yooyu nga ñaan disponibilité ku sa jabar wasinoon ci condition yooyu nga ñaan disponibilité laa ku sa jabar wasinoon ci césarienne huit cent grammes mu laaj ñu koy kangourou madame Faye Sall def interview vingt deux minutes dix sept secondes RTS na moo la moo la kooku kooku war nañu am yërmande ci moom parce que état bi moo ko jox autorisation ba muy defee li la fa xew nag loolu Sonko ak ay avocat bi ko réglé sama yoon na ci mais réew mi toll nañ ci loolu ñun. est-ce que réew mi toll nañ ci loolu dafa fekk nag dafa am lu xew.